billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan Touba Argentine TV ni ngi leen di nuyu di leen ziare di leen ñaanal jàmm di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun kii nag fii ñu toll suñu digg ak Poroxaan mu ngi toll ci ñetti kilomètres wala ñeent léegi tey nag ñu dëkk dugg ci dëkk bu sell bi nga xam ne mooy Poroxaan fa yéene ànd ak yéen ak Touba Argentine TV yabal équipe bu takk boo xam ne ñi ngi déplacé woo dëkk bu sell bi di ñëw teew si nga xam ne moom moo di Poroxaan yéen a ngi nii jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy ñi nga yéen a ngi nii jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal gis nga euh, macha allah oto Touba Argentine TV. mu ngi nii ndeysaan incha allah oto yaa ngi nii tubaarkàlla euh, di dem gis nga takk der yi ñoom tamit def liggéey bu am solo tali bi fee ngeen di seen mooy fi nga xam ne mooy sortie bi route bii nag moom mooy fi nga xam ne mooy entrée bi macha allah ngir li nga euh, sauver li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy embouteillage yi nga xam ne xam nañ ne Porokhane jamono ji selebe yoonu jullit ñëpp la rawatina murid yi fenn fu nekk nit jógee fa fa séenee ñëw nag fi nga xam ne moom moo di poroxaan incha allah dinañ leen defal liggéey bu am solo ak Touba Argentine TV Arona Cissé ci reportage bi Abdou Ndiaye ci caméra bi a Seck diwaan bu Argentine liggéey bu am solo tey dara du leen umpu fi nga xam ne moom moo di ci diwaan bu euh, poroxaan ci li nga xam ne moom moo fi am. kii nag niñ leen ko waxee woon. noonu la amee actuellement nag ñi ngi dugg ci dëkk bu sell bii nga xam ne moom moo di Poroxaan nekk dëkk boo xam ne bu am taarix la ci lislaam nekk dëkk boo xam ne bu am taarix la ci yoonu murit ndax ki nga xam ne mooy wayjur sunu yaakaar Serigne Touba Cheikh Ahmadoul Khadim Khadim Rasoul ci dëkk bu sell bii di Poroxaan fi la tëdd Poroxaan nag nekk dëkk boo xam ne yàgg na lool ci yoon wi dagg yàlla histoire am ci diggante ki nga xam ne mooy maam ant Anta ak soxna Jaara Buso ndeysaan kër gi ngeen di séen ci sunu loxo ndeyjoor sëriñ Niis ture fi lay màggalee moom sëriñ bu Touré moom sëñ Daam Touré sëñ Aliou Touré mu mag ma nga xam ne moom moo daan wax sëriñ Touba Barikàlla Mbàkke joxal ndaw ñi mag ñi doyal nañ euh, foofu nag la sëtam bu baax boobu di màggalee ndeysaan romb nañ léegi kër sëriñ Modou Aminta Fall nga xam ne wax dëgg yàlla moom tamit kenn ku nekk taxaw xamoon taxawaayam ci yoonu maam Cheikh Ibrahima euh, ci kër maam Cheikh Ibrahima forage baa ngi noonu ndeysaan sa tëddoo bi gis nga ko ndeysaan tarkal la poroxaan a ngi noonu fenn fu nekk rek dal yaa ngi fi daayire yi maam jaare yi gis nga ko ndeysaan foto maam Isa Mbàkke ahlu kafe ngi noonu doon sëtub sëriñ ma sàmba doon jàmbaar lool ci yoon wi ndeysaan di jaajëfal bu baax équipe bi ñu àndal suñu chauffeur beeg e, ñoom e, Moussa ak soxna e, Moussa sàll ak ki nga xam ne mooy soxna sa Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax suñu chauffeur bi macha allah moom tamit ñu ngi koy jaajëfal xam naa dinañ ko introsé sax. laaj ko yoon week yooyu xataay beeg nangam nangam ak yu ni mel gis nga ko takk der yaa ngi noonu ndeysaan li ko commencé Kaolack ba ni ñu accès fii nga xam ne nag moom moo di ci Poroxaan daanaka un kilomètre boo daw rek teg nañ fa ñaari takk der loolu nag ñu ciy gërëm bu baax a baax ministre de l'intérieur ci euh, kaaraange gi ndax xam nga yoon yu mel nii ñaare dañuy euh, faral di ci nemmeeku ay jafe-jafe yu ni mel waaye kaaraange gi baax na lool euh, su ko defee it ñuy gën a ñaax ñi nga xam ne it aussi ñooy chauffeur yi ñuy gën a daw ndànk ndax fan yi nemmeeku nañ ci ñaari fan yi accident yu métti yoo xam ne am na ci yoon wi ba ay bakkan yu bare bare ci ci euh, te loolu ci dem bi rek la am te dikk bi ñëwagul kon su ko defee ñi ngi gën a ñaax chauffeur yi bu baax Touba Argentine TV ndeysaan actuellement gis nga ko ñi ngi dugg Poroxaan nii euh, gis nga ko oto yaa ngi nii gaare euh, macha allah waxtu wii ñu toll nag ñu ngi toll ci waxtu ndékkeeg yu ni mel incha allah dinañ leen doxantul foofe nga xam ne moo di ca barabu soxna yi jaaratullahi maam bu Bousso way juru Cheikhul Khadim mi nga xam ne tey moom la ñuy màggalal at ak ñett rek la dund li wax ji di bëri bëri li mbir mi di rëy rëy fanweeri at ak ñett rek euh, moom la dund muy 33 ans euh, liggéey fi liggéey bu rëy bu am solo boobu yi soxna Jaara Buso kon jàpp naa ne jigéen ñu bare bari euh, tey war nañoo roy ci ki nga xam ne mooy soxna Jaara Buso ndeysaan su ko defee rek kon ci kanam tuuti incha allah foofee nga xam ne moom mooy ca barab ba ak ziar yi nga xam ne dina fa am teen baat incha allah dinañ fa demal demal leen lenn ci euh, këri kilifa yi nga xam ne aussi tamit euh, nekk nañu fii di fi màggale ñu ay kilifa yu mag ren nag ndeysaan am loo xam ne lu yees ci mbir mi la ndax xam nga sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Bachir doon ñaareelu xalifa Serigne Bachiru ginnaaw bi Serigne Moustapha Bachiru euh, taawub Serigne Bachiru ba wàcceeb liggéey mu wuute ko ci xilaaf ak Cheikh Mahamadul tey jii nag moo nekk xalifa euh, Cheikh Cheikh Mahamadul Bachir waaye moo nekk xalifa Serigne Touba Cheikh Amadul Xadim Xadim Rasoul euh, te loolu bi mu toogee xilaafa gi ak léegi ak poroxaan ji ci 40 jours rek lay toll kon loolu yaakaar naa nekk na mbir mu yéeme kon ren màggalu poroxaan dafa tombeek Serigne taxa Mbacké mi nga xam ne mooy taxawee màggal gi nekk xalifab sëriñ Bachirou doonaale xalifa sëriñ Touba ginnaaw bu jàmbaar ja Euh, sa Serigne Chidil Makhtar Mbacke wàccee ab liggéey euh, ci euh, mois de janvier bi nga xam ne moom la ñu génn doonoon mbir moo xam ne mbir mu metti la woon mbir mu tiis la woon waaye sunu borom moom saa bu ñëwee akub dogalam rek ab jaamam da ko war a nangu kon tabaarakallahu jox daja rek incha allah ci ci kanam tuuti foofee nga xam ne moom moo di ca barab ba